ñu fa yéenee indi ay leeral ci téerab Cheikh Mouhamadul Amin Baara bi di mu Bunyaan Munawwirul Bunyaan muallimal juhudi wal xumyaan Munawwirul Bunyaan nag téere la boo xam ne Cheikh Mouhamadul Amin Baara mu ngi ko def ci atum hëlsachin di atum 1335 ci gàddaay bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di tolloog atum cent 1916 di téere boo xam ne Cheikh Mouhamadou Lamine Bara daf koo def ngir di ci ñaan yàlla waaye mu def ko ci façon bu yéeme comme ni mu koy waxee ci tarjumaan ji te mooy day ilmi mboolem turu suñ borom yi nga xam ne moom la ñu tuddee al asmaullahi al maanaam juróom-ñeent fukk ak juróom-ñeenti turu suñ borom yi nga xam ne moom lañ saxal ci alquran ak sunna di ko tuddee asmaullahi alxusna yëpp indi na ko ci biir téere bii nii indi na itam ñaar téeméeri tur ak benn yi nga xam ne moom la ñuy saxal ci bi sallallahu alayhi wa sallam ndax yonent bi liñ koy saxalal ci ay tur moom dafa bëri lool am na ñu koy lim sax ba junni waaye am na ci ñaar téeméer ak benn yoo xam ne moo gën a siiw te moom la boroom dalaa ilul xayraati indi ñaar téeméeri tur ak benn yooyu yëpp itam cheikh Mouhamadul Amin bara indi nako ci biir téere bi ni indi na itam téeméeri sar ak fukan ñent yi nga xamni mom mo ñew ci alquran maam 114 sar yi nga xamni mo ñew ci alquran benn bi ci nekk itam indi nako ci biir téere bi ni di ci ñaan suñ borom kon téere la bo xamni sa yo ko jàngee rek tuddu nga mboolem turu suñ borom yi tuddu nga mboolem turu yonent bi waye tuddu nga itam mboolem saru alquran yi. moom nag ay bayitam mu ngi tollu ci deux cent cinquante six abyaat ñaar téeméer bayit la ak juróom fukk ak juróom benn di tolloog adadu nuur di xasida gu bari njëriñ goo xam ne li ci nekk ci ay secret moom kenn mënu koo wax ku koy jàng rek te saxoo ko incha allah diñ ci ngis lenn bokk na ci lenn luñ mën a wax rek mooy am na benn jàmb yàlla bu koy faral di jàng bis mu gént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 dane auzu billahi min asheytaani rajim dafa tàmbalee ci ñaan yàlla mu musal ko ci sheytaani rajim tekki ne bismillahi rahmaani rahim tekki nag tàmbalee ay waxam ci bismillahi rahmaani rahim ndax lépp looy def rek yonent bi dane woon lépp lu ngeen def rek na ngeen koy tàmbalee ci bismillahi rahmaani rahim wala loolu wala bokk jëf jooju day doon jëf joo xam ne ju manqué lay doon الحمد لله حمدا يفوق حمدا من حمده ومن يحمده من عباده من الحمد لله حمدا يفوق حمد من حمده ومن يحمده من عباده nee na maa ngi sant yàlla sant goo xam ne day kawe cant képp ku ko mas sant maanaam sant gii sant yàlla képp koo xam mas ngaa sant suñ borom rek nee na man sëriñ baara maa ngi sant sant goo xam ne kawe na cant googu waaye yemu ca képp koo xam ne itam di nga mas a santaat suñ borom rek ci ginnaawam itam nee na mu ngi sant yàlla sant goo xam ne day kawe cant googu noonu nga xam ne sant gii muy sant yàlla daal moom kawe sant yi paase mooy kawe itam cant yi nga xam ne ñëw ala xayri anbiyaa'il mustafayn fi jamii'i baadi wasalaatu wasalaamu ala xayri anbiyaa'ihi almustafa'i fi jamii'i ibaadihi nee na ginnaaw ma sante yàlla nag maay ñaan xéewal ak mucc nekk ci ki nga xam ne mu gën ci mbooleem yonent yi yàlla wàccee te mooy ki nga xam ne bu ëllëgee moom la yàlla di digal ngir mu ramm ay jaamam kooku nag mooy muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne amma baadu nag ginnaaw bi ma sante yàlla julli ci yonent bi fa yaqulu lfaqiru ila allahi rajihani bihi fa yaqulu lfaqiru na nag ki bëgg a wax mooy ki nga xam ne alfaqiru ila allah dafa aajowoo jëm ci yàlla maanaam bëggam yépp ci yàlla la nekk moy ki nga xamne nak nag dafa yaakar yàlla alganiyu bihi waaye ki nga xamne dafa doylo suñ borom koku mo bëgg wax ahmadul amin almultaju ilayhi talib minhu an laa yaxiif an ilxaq wala yamilu mutawasilan ila rabbihi lkarim basmanasna لكي يكون من المحسنين لهم زيادة walxusna jaamiham ما bisma سور القرآن العظيم ناسمان كدر النسيم وبأسماء نبي سرجا الأمين الذي شرب الله بخلق عظيم والله يرزق من يشاء بخير حساب ويعلم من يشاء بدون تعلم وقراءة بكتاب ina كوكو kooku mooy kan mu ne ahmadul amin kooku mooy ilayhi mooy ki nga xam ne mooy wéeru ci suñ boroom ab taalibu minhu allaa yaxiifa anil xaq mooy ki nga xam ne lenn rek lay sàkku ci suñ boroom mooy waxtu wu nekk na bañ a ci ak dëgg fu mu toll rek ni nekk ci ak dëgg te mooy lu neex suñ boroom wala yamiila mutawassilan ila rabbihil karim waaye di ñaan yàlla mu def ko koo xam ne du mës a deñ mukk di def ay tawassul maanaam ay ñaan yoo xam ne daf koy jëmee ci boroomam subhanahu wa taala ndax addu'a u muqul ibada lañ wax ñaan moom mooy yuqub jaamu yàlla waaye nee na tawassul yooyu muy ñaan nag ngir di ko jëmee ci suñ borom nan la koy defee mooy bi asmaihi alxusna nee na tawassul lay doon yoo xam ne daf koy jaarale ci turu suñ borom yi nga xam ne moom moo gën a sell li kay yakuna min almuxsinina alladina lahumu ziyadatu wa ndax nee na yàlla boole ko ci way rafetal ya nga xam ne ñoom la waxoon ne dañu dinañ dinañ am li ñuy tuddee azziyaadatu wal xusna boo demee ci suuratul yunus borom bi mi ngi wax ne lilladina ahsanul xusna wa ziyaada ñi nga xam ne kat dañ daan rafetal bu ëllëg yi dañuy am alxusna alxusna mooy dinañ am àjjana azziyaada mooy euh, dinañ gis borom bi subhaanahu wa taala dinañ gis borom bi subhaanahu wa taala maanaam yàlla ko yàlla boole ñi nga xam ne dañuy dañuy bokk ci waa aljanna waaye duñ ca yem dañuy bokk ci ñi nga xam ne ñoom ñooy gis jëmmi suñ boroom yi mu ne jaamiam maaha bi asmaai suwari l quraani l azim nazman kat durrin nazim nee na tur yi muy indi nag daf koy booleeg saari al turu saaru alquraanul karim yi waaye nag nazman kat durrin nazim lu koy way ràbbale ko ba mu mel ne wurus woo xam ne dañ ko organiser وبأسماء نبيه ذي الجاه العميم واي نينا دوكي يام نك دافتي بوله تور بي يونتي صلى الله عليه وسلم يونتي بيغا خامن موم موي بوروم درجه يو ماتاليا الذي صوره الله بخلق عظيم نينا يونتي بي نك موم موي كيغا خامن يالا موم موكو ملال جوخكو اي جيكو يو خامن جيكو يو ماغا ماغ لا موني نك والله يرزق من يشاء بغير حساب yàlla nag moom mooy wërsëgal ku ko neex te du ko laaj du ko régler wa yuallimu man yashaau biduni taallumin wa qiraatin bi kitaab sëñ mbaar yi itam mu ne yàlla nag moom it moom mooy ki nga xam ne moom mooy xamal ku ko neex te du jaar ci am jàng moom mooy xamal ku ko neex te lam koy xamal du ko jaarale ci xam-xam boo xam ne dañ koy dañ koy liir ci ab téere nga xam ne fii nii mu ngi junj tawféex bi nga xam ne moom la ko borom bi defal nga xam ne daanaka lim xam ba tax mu bëgg taalif doonul loo xam ne daf koo jaarale ci am njàng waaye doonul loo xam ne daf koo jëlee ci ay téere waaye xam-xam la boo xam ne daf koo jëlee ci suñ borom subhaanahu wa taala